dal na xel dal na xel ndax bu ñu la joxe xaalis tey jii fi ñu taxaw nii quatre virgule vingt pour cent joxe nañu ko àgg na ci ñi ko soxla li ci nekk rek mooy am na quelques difficultés 14 pour cent yi mën nañu wax ne problème organisation la pour moto jakarta yi problème d'organisation la pour taximan yi problème d'identification mais li am solo mooy ñi ngi ci liguey sen comité déjà wax nañu né tay ji sax dañu réunion après notre départ pour que solution yi nga xam sax ñun indalé nañu ko ñu xol ak ñom nan lañ koy mëna régler rapidement yo xam ne bi xaalis bi ak ci ay endroit lolu moy li nga xam bi moñu moñu rassurer rassuré rapport bi nga xam mom moom wara a def def liñ fi dégg dañu permettre mu nekk un rapport mieux fouillé pour que effectivement président bi bu yor rapport bi am globalement loo xam ne bii mu xam globalement li xew ci réew mi en tout cas ci force Covid bi.